Euh, Serigne Mbacké Gueye di directeur général SMBG amul lu mu yëkkale bés yi ci réseaux sociaux yi euh, soxnaam ak comptable am euh, gannaaw ba mu xam leen ni ñoo ko détourné lu mu lu ëpp benn milliard suñuy koppar gannaaw ba mu xam leen sax ni bett na soxnaam soosé muy njàllo weeru décembre atum 2019 monsieur Gueye nee na it gestionnaire am financier bi nga xam ne nii da ko wóolu woon lool da ko war moom it créer ay entreprise di koy concurrencer ba tax tey entreprise am bi nara dem en faillite it ndax nee na xaalis bi mi ngi dugg bu baax waaye euh, duñu gis leen ci compte bancaire yi bu weesoo loolu Serigne ba Gueye nee na ndekete tamit soxnaam si ak comptable boobe euh, ñoo ngi déggante ngir euh, damm ay tànkam te yóbbu si lenn monsieur Gueye nag si jaayuma pièce détachée la dooree ca Colobane laata wërsëgam di ci ubbeeku mu créé ab entreprise gannaaw ba mu collaboré ak ay transporteur si noonu entreprise bi di évoluer mu collaboré ak ay société yu rëy lool eh, di tukki di ñëw ngir gën a ñoŋal société boobee di SMBG eh, ba tax mu embauché comptable boobee mu wóolu teg lépp ci loxoom eh, waa joojee it nag moo sabab sax problème am yi mu am tey yëpp ndaxte ba mu ko jëlee rek la gis xaalis amatul ci entreprise am boobee mu sàkku ngir ñu audit entreprise am dal di fay ay comptable certifié ci noonu yi nag daal di laaj kookee mu dënk wàllum koppar gi ci société am ñetti bilangu at yu mujj yi ak rek euh, li nga xamante ne ni euh, moom mooy livre comptable bi ba auditeurs yi pare nag lañu génne génnee euh, benn milliard ak trois cent vingt millions et quelques si suñuy koppar yaa nga xamante ne ni xamuñu rek ana fan la dugg léeg-léeg nag di koppar ga nga xamante ne ni tamit comptable bi mënu see justifier leen ci noonu ne monsieur Guèye daal di déposer plainte juróom-benn fan ci weeru juillet bi ñu génn ci section de recherche recherche bu Colobane ñu ko fay toppee détournement faux et usage de faux escroquerie blanchiment de capitaux abus de confiance ak complicité ndax lépp rek nee na daf see complot ak soxna ba Serigne Mbacke Gueye ba noppi créer ñetti entreprise yu bokkul ci xaalis boobee mu ko sàcc ba noppi di koy concurrencer euh, si suuf ngir daaneel entreprise am moo Gueye nag ne saa su waree gagné marché rek waa ji da koy suufu euh, jaayee rek lu gën a yomb te mi ngi liggéey ba tey si nee na itam comptable bi di def euh, njuuj njaaj yooyee euh, ci biir entreprise bi mu ngi doon a dégganteeg soxnaam te yóbbu si lenn euh, mu dem sax ba jëndal soxnaam soosé di awoom ab téléphone portable ak puce expresso te yóbbu ko ñoom ñaax ñu siy déggante te tout le temps dañuy waxtaan ndaw si di koy laaj ndax waa ji amul benn changement ci yow ndax yaa ngi enregistré ak li ni mel si noonu nag mu jël preuve yu mu am yëpp daal di koy jëbbal waa section de recherche ñëw euh, bureau daal di teg loxo nee na euh, comptable am boobee ci ëllëg sañu ñëw euh, këram teg loxo madame Guèye di soxnaam mu def fa ay fan laata commandant bi di koy woolu ne ko rek sa jabar laaliwul ci sa alal te boo amee règlement de compte booy réglé ak moom defee ji leen ko si seen kër te moom ba muy porter plainte ay firndeel yu leer nee na la yóbbu ba ñu ko ni yow danga togg ba pare rek dang ñoo jox ne ñu lekk leen ndaxte daanaka saytu yëpp daal di ndax nee na bu ñu siiwalul dossier bi nu ñu libéré soxnaam soosé di complice ci mbir mi dinañu ko libéré comptable boobee di ND mu yoon atteeguloon ci noonu monsieur Guèye ne foog nag mu waxtaan ak presse bi ngir rek adduna bi mën a xam lu xew ndax entreprise yu mag yu nekk fii si Sénégal yëpp day liggéey ak ñoom te depuis benn at mi ngi nii liggéeyul depuis weeru décembre 2019 laata muy jógee Paris la yëg affaire bi te ba mu ñëwee ba léegi mi ngi koy dox kenn jàppalewu ko si yàlla dimbale ko ba mu xamal lépp boppam te créé na it ay emploi ndax ay père de famille ñooy liggéey ci moom ba tax na benn saay-saay bëgg a détourner xaalisam boobee du lu mu mën a muñ du tamit lu mu mën a nangu laata muy ñaawlu nu ñu ko seetaanee ci problème am yii tey naan un milliard trois cent vingt millions la ñu gisagum waaye ëpp na loolu te tamit nee na am na ñu nekk seen ginnaaw du ñoom rekk ndax te soxnaam si bu ñu ko jàppee neen taxul ñu bàyyi tax tax ñu bàyyi ko dinañu ko gëstu ba xam ko ndax moom Serigne Mbacké Gueye euh, baalul kenn ndax alalam daf koo ñàkk ba tax na day xeex ba fu mu yem neex euh, si noonu nag euh, muy interpellé njiitu réew mi Macky Sall ne ñoo ngi jaay doole benn doomam te yàlla may na ko su ko neexoon fu mu bëgg a dem tey balaa guddi mu dem fa ak njabootam waaye nag bu toogee fii di liggéey di créer ay entreprise di war a liggéeyloo ay nit yu bëri waruñoo seetaan benn malfaiteur di dal rek ci kawam ngir di koy yàkkal ba tey rek rek Serigne Mbacke Gueye ni eh, jamono audit gi sax eh, day nekk ak comptable bi eh, soxnaam di koy woo téléphone mu xam lépp bàyyi leen si biir di leen yeeru rek gën leen jox confiance ngir rek gën a am lu leer ci la mu bëgg a xam waaye nee na xamul ba tey fan la soxnaam si ak comptable am boobee miinante te nee na am na si loo xamante ne nii sax ba mu ko yëgee daf see feebar ndax mënula wax lépp waaye nag firndeel yamu ca jot am yëpp jox na ko avocat wam waaye confrontation ak soxnaam si nga xamante ne daf ko libéré ba noppi doog leen teewloo ndor soxna Serigne Mbacke Gueye tamit daal dinay addu ci mbir mi la mu ca xamle moo di dégg na lu borom këram wax lépp di ko bett lool ndaxte yaakaarul woon ne kii di borom këram dina ko def lii tey waaye xelam moo toll nii ba loolu weesoo la ne nag ba ñuy tudd doomam la xamante euh, comptable bi def boobaak léegi ñeenti at ba loolu weesoo màggal Touba ñu bokk benn oto moom borom këram ak euh, comptable bi Euh, bokk kër bu ñu dal euh, ba heure ñibbisi si noonee mu ne nag c'est normal muy dégganteeg moom ndax mësula teg tànkam école doomam lépp rek euh, comptable bi si boppam moo koy gérer te borom këram moo ko ko defloo kon c'est normal muy déggante ak moom ngir xam tolluwaayu njàngu ba doomam yi waaye xamul dara ci entreprise bi te bu muy wax it ko ñëpp déggee ko déggee moom muy madame Guèye lu ñel nag ndax dañu doon gisante moom ak kooku doon gérer wàllu ba koppar gi ci entreprise surprise borom këram ak lu ñeel portable bu mu ne moom la ko jëndal ak puce expresso bu ma ko wutal ñu siy déggante te monsieur Guèye dasee am lu leer nañ ndaxte rek moo ko déggal boppam si benn enregistrement ndaw si la mu si xamle moo di puce bu mu yor petit frère am moo ko moom te rek mësula lekk ñaar dërëmu kooki di liggéeyal borom këram rawatina rek mu di koy jëndal ab téléphone ak ab puce si noonee ndaw si ne sax mësula may ay waajuram cent mille francs bu mot kon moom su amee milliard ana fan la ko duggal soxna si sax nee na tamit foofu mu ko luweel quatre cent mille lay fay weer wi yàlla sàkk am na ay arriéré yu bëri ya nga xamante ne nii fayuñu ko ba kër gi da leen di waaj a génnee ba tax mu ne ndax soxna ba milliardaire dina mel nu mu mel moom rawatina doon milliardaire say soxna yëpp di ay locataire say waajur tamit di locataire si noonu mu ne moo ko monsieur Guèye say nañu fukki ak juróom-benn te bu ko defoon tey sax lenn waroon naa xool si njabootam bañ jiit jiital xaalis a loolu weesoo la ne benn bés la ko waa section de recherche woolu ne ko sa borom kër dañu koo jëlal euh, koppar lu ëpp benn milliard mu ne leen xamul woon sax ne borom këram am na loolu ñu xamal ko nii euh, comptable am moo ko jëlal loolu euh, mu ne ko it loolu de dara leeru ko ca madame Guèye nag nee na xamul woon tamit ne boroom këram moo ngi koy suivre di koy déglu te moom xamul euh, ban banque it la am koppar rawatina leen ci entreprise am boobee te section de recherche la xamee lu comptable bi am te xanaa moom su doon bokk na nee na ci sàcc bi tey dina si am dara kër wala leneen si noonu mu ne nag lépp bàyyi na ko ci loxo suñu borom ndax xelam moo toll noonu waaye nee na ba ñu ko jàppee kenn tëju ko ci gri kenn mënatewu ko ci salle bu baax la tëdd am clim télé ak lépp ba ñu def fa seeni ay saytu ba noppi libéré ko ndax gisuñu fu mu si tàkkee waaye heure bu ko tribunal soxlaa rek nee nañ dinañ ko woolu li ni mel nag di mbir mu doy waar moo xamante ne ni dañuy xippi suñuy gët di xool rek ana fan la wàññeent di mujjee gëtam.